ay Aïcha moo ngi noonu amis téléspectateurs de MNTV ñoo ngi leen di woo ci seen émission bii di Lights Talk On dinañu ànd ak yéen si vous êtes passionné dans le domaine de l'éducation de l'entrepreneuriat et de la culture incha allahu rabbi dinañu ànd ak yéen si ay concepts yu am solo bu ko defee dinañu waxtaanee si wàllum domaine bi ngeen nekk muy si wàllum technologie si wàllum santé si wàllum sport wala sax ci wàllum naka ngeen di boolee culture bi maanaam c'est-à-dire vos activités extrascolaires ak li nga xamante ni moo di seen jàng bi gis nañu waxtaan si dina nekk lu am solo lool. moo tax tey ñu indi leen émission bi di Let's Talk On comme nañu leen ko waxee bu yàggul dara bu ko defee képp ku ñu bëgg a seetaan da ngay ñëw fi nga xamante ne moom moo di Majmahun Nurayni TV wala bu ko defee nga daal di woote si numéro commercial bi muy 77 91 91 ngeen woote ñëw ànd ak ñun ci biir émission bi di Let's Shop On bu ko defee ñu daal di waxtaan ci domaine bay ay ca ñu def noonu.